boo sàgganee dana yàqu de mardi tali mardi tali le a kaay ne waaye président Macky Sall day ah daal nay woote na kon woote gu mujj ga ngir ñu tàmbali waat nag wàllu njàng meeg mi la te jeexal nag grève bi nga xam ne kon moom la ñu nekk da na kon ñeenti weer ma ne la président day waaw nit ki nag daal dina koy jaare ca porte parole gouvernement bi day daal dinay woon a jàngalekat yoo yee ñu daal kon dakal geréew ba le soleil yéene kaay vox populi président day daal dinay woote woote ba mën a di koy waaw nee na gis ne am ci njàng mi danañu ko ah. na leen ab dee na leen mettre na leen en demeure ñoom jàngalekat ya waaw ndaxte gouvernement bi kat nee na léegi la bëgg kon ñu daal dooraan njàng ma immédiatement yéene gi ne waaw ma la ñoom tamit gën nañoo siisu waaw waaw gën nañoo siisu laa la wax parce que Abdou Fati day général bu Sels authentique nee na pare nañu dee dem te nag sës la ilaha illallah Abdourahmane Gueye général u UDEN waaw nee na nekkul ne xoñoñe la xooxaral gis nga tiitalaate yii Ndiaye laa la wax la ilaha illallah man ak njaareem limaamu laay ga Abdourahmane Gaye wax lii maa la ko wax Alaaji Malick Youm bu SAEMS nee na pare nañu dee ngir xeex confrontation maa la ko wax professeur Bouba Diop nee na moytu rek moytu rek balaa musiba mbaa ba kumba kon di tragédie di fi am la ilaha le quotidien ne kay ne plan SMT nee ma plan Serigne Mbaye Thiam waaw mooy daal di jëlaat nag examen yi day daal di leen pousse ñaari semaine tey njàng mi njàng moome enquête yéene kay nee na gis nga jàppal bàyyil bi am kon ci diggante gouvernement bi ak jàngalekat yi waaw gaa ñaa nga cooki fin la guerre finale man na ña nga cooki fin ba laa la wax góor gi day yëkkati nañ seen kàddu de jël nañ tamit askan wi lée def leen kon am seede eh. Abdourahmane Gueye bu ideen moo remplacé Awa Wade waaw nee na gis nga liggéey loo ñu par force réquisition eh. a at yi mënta ne du baax du jàll de déedéet Abdou Faty day nee na tam dëmm gi nga xam ne kon nguur gee koy tam dëmm na jàngalekat yi rax ci dolli kon di ñu attaqué li ngeen xamul mooy nguur googee weeru dee wu ne ñaar fukki junni kon jàpp fanweeri junni day la ñuy dagg jàngalekat yi laa la wax waaye ñooñu waxuñu dara de parce que ñi dañ koo sombi dañ koy naan te nguur gi nag yaay boo yoo nee na wàllu njàng meeg njàngo xale yi lée da koo bëgg defar ba mu baax Abdourahmane Gueye ne bu ko bëggee defar ba mu baax baax ci jàngalekat yi kon lay door teg leen ci ay conditions de travail baax waaye tamit kumba am ndey kumba amul ndey gën-gën le gi am ci diggante ñi nga xam ne waaw wal fajri ne coow xam ne moo am kon ci wàllu njàngame njàngale mi day mbir mee ngi de mbir mee ngi de parce que am na ñaareelu élève boo xam ne day gërë na ko ca Thiès la ci la fan maa ko wax ku njëkk ko Ousmane Mbaye lay wuyoo waaye kii day Amady Touré lay wuyoo day ma ngay menacé kon grévistes yi yi grève waaw yéene gi ne waaye gis nga jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo ma yàqu na léegi dugal ko benn danañ kalaame ji kon te conseil constitutionnel danañ dem ca cour suprême danañ dem ca CEDEAO danañ dem ca union africaine ñëw te tamit semaine bu ne opposition bi nee nañu danañu amal ab 19 avril danañu wàcc ci mbedd mi kon yëngal gësëm la ilaha semaine bu ne maa la ko wax waaye ñoom tamit wax nañoo conseil constitutionnel de parce que nee nañu gis nga magistrat yooyee mais lii ñuy def ñun dootuñ ko nangooti ñun opposition bi saay bu leen Macky Sall kon bindee maa ngi woo président Macky Sall ngir loi mu di koy ko fi day ci enquête ma expliquer lan tax ba Macky Sall mi lé jàpp constitution bi kon di ko tamit di manipuler processus électoral bi élection yi dara taxul muy def Macky Sall xam ngeen ne 2012 jël juróom ak juróom 65 ci Sénégalais 2017 élection député jël ak juróom 49 Macky Sall kay kon bu di daanu di ak député gi nga kon def nañ ko jax mascarade koo xam ni kon maar day taali teewul 49 pour cent dong la nu am Malika koy wax di sama kat dee jiital grand parti ne eh, man nag li ma mooy gis nga nguur gi nekk fi nii tey waaw ñàkk nañu kon majorité politique bi ak sociale ak économique alaaji Malika ku ne plan Sénégal émergent bi lan la jur daaneel industrie yokk chômage Sénégal yori bor ba maar day taali laas en tout cas Khalifa Sall moomee day ca CEDEAO tribunal ba waaw ñaar fukki fan ak a kooku moom nam duggee woon ca biir xolu sénégalais yi noonu la génnaatee ca xol ya ak lam mu s'est arrêté kooku moom bis ca nooba waaw ca la tekki ndoom ma tànkam ca assemblée nationale député ànd jaak Macky ñu ne deet ni waay ñu ne ànd naak moom sax na tukki ca jamonoom nee na pat ana Moustapha Diakhaté APR kookee moom ba mu nekkee ca nguur geeg opposition yëpp da doon dóor foo toll dégg kàddoom ah xanaa da ngeen di fàtte lam fi waxoon Alioune Sall mi le rako Macky Sall jaxatee waa ana Karim Wade moom ki xam ne moom lañ ne woon mooy ministre wi ñu dénkoon asamaan ak suuf ministre de la terre du ciel waaye ba bàyyam daanoo waaw ca la daanu créé tribunal kaso ñu gàddaay loo ko mu génn Karim kay léegi whatsapp Mr Karim noonu lañ ko tuddee ana Abdoulaye Baldé l'homme du centre nee bokkul ci opposition bokkul ci nguur gi waaye mel na ni jege na nguur gi ak Macky nag nee na pat libération kay ne ambassade du nag man d'accord naa man Modou Lo même bu dee biir këram la ñuy organiser lamb ja ca biir kër Balla Gaye 2 man Modou Lo d'accord naa <laughs> alaaji Modou Lo day lépp lu mbër war am yàlla may na ko de am na caay-caay ga am na mbooloo mi te loo gaaw-gaaw mu ñam la moo tax ma naan la alaaji tëjal Samsung ak seen téléphone